bismillah ay xaar ñëpp di leen màggal di leen jox seen yéeguwaay di ñaan ñu commencé émission bi ci bismillah terminé ko ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla ya defal ñu tawféex ak taysir yàlla ya mën na ko te yàlla na ko def quoi aussi maa ngi tudd Abdou Lahat Mbacké ah, Diouf dëkk parcelle quoi ah. mu ko dëkk ok donc ñu ñëw la en tant que coach en tant que manager ci salle ok centre bi mi ngi tudd Africa Sport Football Club donc Africa Sport Football Club la tudd ñu ngi ko créé depuis 2016 2016 lañ ko créer quoi boobu ba léegi ñu ngi ci nag di góorlu di liggéey xam nga Sénégal moom liggéey bi dafay xaw a métti mooy du réunir dara du réunir mais da ngay essayer gérer rek selon tes moyens pour gën a progresser jëm ci kanam quoi Mm-hmm. bu mm-hmm. nga xamante ne fekk woon mm-hmm. yoo xamante waaw parce que àdduna moom li ci ëpp solo moom mooy soo sooy liggéey rek bul xaar ba lépp réunir nga soog a liggéey après su boobaa dayo bi nga ci war a def doo ko ci def sa parce que jii nii mooy li may wax chaque jour rek ci football su sa papa amee moyen sa yaay am moyen pour nga nekk jour problème lay doon quoi jour ku fin moo koy def ku xiif moo koy def sa parce que li mu laaj dafa métti boo gisee ni sa papa xaw na am as tuut rek pour nga def football dafay métti doo ci avancé sax sa parce que tey jii nii li nga may laaj ci côté terrain yi pour naka la ñuy entraîner ci stade yi affaire yooyu noonu ñu ngi koy gérer sa parce que tey jii nii am nañu ay partenaires yoo xamante ni ñu ngi à l'étranger chaque instant que jëfee ñu xool lan mooy progresser loo centre bi lan moo koy jëmale kanam norme yi léegi naka lay doxee loolu noonu yëpp ñu ngi ci quoi waaw ñu ngi ci du lépp la ñuy wax ci caméra quoi da ngay wax tuuti denc tuuti quoi. say mhm. mhm. Mhm. sa diggante. waaw c'est parce que ñii du ma ni samay rakk lañ du ma ni samay jarbaar lañ samay doom lañ quoi. franchement parler samay doom lañ sa parce que bala ma gis kenn sama kër su ma xëyee ñoom laay jëkk a gis ñoom bala ñu gis kenn seen kër bu ñu xëyee man la ñuy njëkk a gis kon donc foofu rôlu papa rek laa fa mun taxawee mun ma fa taxawee taxawaay dara du ay coach du éducateur du dara rôlu papa laa fay taxawee ba mu mat sëkk nag ci côté yëpp sa parce que ñoom dañ ma fonk moo tax man aussi dama leen a fonk waaw. Mm-hmm. tey boo xam nga xam nga xam nga adduna moom liñ naan booy investir da ngay investir ci li nga comprendre ci li nga xam ci li nga mën tey jii nii man mënuma investir ci atelier mécanicien wala ci atelier leneen parce que football laa xam football mooy sama métier depuis yàlla dimbali nañu dem nañ fu ne ñëwaat. mais lépp ci loxo yàlla sunu borom la yàlla mooy doxal moom mooy ñàkk doxal comprendre nga depuis boobu ba léegi nag xam nga des fois di nga jaar am expérience après nag di nga jaaree pare am expérience bi jaar ci ay coach yu mag ñu encadré la ba nga xamante ni danga ñëw pour encadrer waaye loolu doyul loolu doyul de foog nga jàngi foog nga jàngi ñun jàng nañ yàlla suturaal nañ ba am nañ diplôme yu ndaw alhamdulilahi rabbil alamin quoi sant yàlla bu baax am nañ diplôme bu ndaw waay barke alxuraan. Mhm. Mhm. Mhm. waaw mooy li ma lay wax rek. mais li ñuy duñu samay rak duñu samay jour samay doom lañ sa parce que biñ ko créer boobu jete joueur maa ngi football ñun bëri woon nañ mais après ñu bëri dañu am defe ji jëli ji seen yoon quoi après ñu téye rek ñu téye am koo xamante ni mi ngi woon au niveau la woon mooy Papa Laay ñëw wax ñu affaire yi ni muy doxee ba pare ñëw jàpp ci nag jàpp ci comprendre nga ba nga xamante ni affaire yi taxaw na léegi nag ñu am sunu beneen koo xamante ni sunu mag la ñoo bokk lépp muy Adja Doumbouya moom mooy suñu présidente fi mu nekk nii sax parce que tey jii nii ñooñu booleen xoolee rek yow da ngay gën a amaat courage gën a amaat confiance ci li ngay def di gën a rayaat sa bopp de temps plus loolu noonu yëpp bu bu dajee après xale yi xale yi toujours ñoo may motiver xale yi ñoo may motiver chaque instant que Dieu fait parce que lu tax ñoo may motiver su ma leen nee entraînement 4 heures du matin soo koy wax dina am ñoo xamante ni dañuy am fit mais ki kii naka la mun a entraîner 4 heures du matin mais dama doon entraîner 4 heures du matin temps suñu terrain pendant Covid bi. kon donc ce qui veut dire que nga xam ne xale yu am ambition la te xale yu gëm seen bopp lañu nga leen di gisee fu ne la ñuy jóge barke alxuraan fu ne la ñuy jóge di ñëw entrainement partout ci dakaar te xam nga loolu dafa métti dafa métti maa ngi koy wax sànq football Sénégal dafa métti Sénégal ngay ñëw di football ñu ni la bàyyil football dem wuti liggéey mais booy ce ma fee mal ba fait ma mal jàng baax na de mais jàng pour xam la fii nii est-ce que kii jàngi dinañ ko wax baal football baal jàngi. Hmm? mais ñun ak ñuy jàngi ñun benn lañ quoi franchement parler benn lañ ñuy jàngi dañuy wuti ñun dañuy wuti ñaata ñoo nekk ci banc école di jàng du ñëpp ñoo ciy jariñu ñaata ñoo nekk ci terrain di wut du ñëpp ñoo ciy jariñu kuy am ak ku am kooku ndimbalu suñu borom la barke alxuraanul karim yàlla suñu borom la le dernier bi lui revient chaque instant dangay ngay dégg ma nante bi man nante bi laa koy woowee yàlla suñu borom mooy baaxal mooy def lépp c'est parce que yàlla amul lu bon fi chance amul gars yi dañ naan change change change amul change sawaay amul bu dee chance la bu nekkee mille personnes benn moo ciy am chance li ci des yëpp mérite la boo liggéeyul doo am boo liggéeyul doo seddu mhm. mhm, mhm. alhamdulilahi rabbi alamin santaat yàlla bu baax mercredi je pense que 4 heures du matin je ma fekk euh, Léopold qui en ah, Blaise Diagne Blaise Diagne donc ce qui veut dire que ni sommes avant wéru koor gi dem avant le koor après le koor gi mercredi bi passé dem avant lool non yépp aussi Europe ñii dañu dem asi ñii dem Europe comprendre nga yooyu noonu yëpp dañ ci liggéey yàlla boole ñëw nag kenn koo xamante ni mu ngi liggéey liggéey ah. grand liggéey àdduna dama lay wax tuuti lu bëriwul parce que alxuraanu karim liggéey moo lay yóbbu fépp foo bëgg a dem des fois damay gis nit yi naan kii dafa ma war a jàppale non fii yaay jàppale sa bopp yàlla fekk si la bul xaal ku la encouragé encouragé sa bopp ku la ci fekk nag dalay dimbali bul xaar ku la encourager des fois damay dégg ñenn ña waaye kii duma ma encouragé sama mag bi nekk fii dimbaliwu ma déedéet yaay dimbali la sa yaay dimbali sa bopp moom mu gis la ni yaa ngi ci yoon bi li sama waa ji doon wax rek sëñ Fall waaj dañu ko déema yóbbaale mu ne ko naa lay fekk ci yoon bi ki ne ci yoon moo neex a yóbbaale liggéey moo ñu indi fii nii du dara du tous du foog du naada du rien liggéey moo ñu indi ba fii nii booy barki alxuraanu karim ku liggéeyul perte nga fii kenn du dimbali kenn kenn dimbaliwul kenn da ngay liggéey pour ñaq jariñu ku la ci fekk nag dina am ay bon volonté yoo xam dañuy ñëw pour di jàppale pour di teg loxo loolu pas mal de fois daf may fekk suñuy entraîné laahi gaa yoo xamante ni xaw ma leen ñu ngi gëj bokkee ci Adama ak mais dañuy jàppale sa parce que xam nga lu booy la ñuy gis seen engagement seen détermination football baa doo loo koy def je t'assure du caaxaan je m'excuse du terme football ku amul dara moo koy def football munoo ni sa papa dafa yor dafa am nga ni da def football doo def loolu doo ko def billaahi wallaahi wa te parents yi aussi ñun foog ñu mel comme tubaab yi des fois booy wax tubaab yi des fois day da ngay gis ñoo xamante ni dañ la naan non ñun dañu war a respecter suñu bopp gars yi ñun respecter nañ suñu bopp bu baax a baax a baax baax mais des fois ñun dañuy am problème naka la ñuy amee problème parents yi suñuy waajur lañ suñuy lépp lañ des fois da ngay bëgg ni man football laay def ñu ne la doo football ji tey nga dem defi ji mécanicien des fois nga bëgg nga ni man mécanicien laay bëgg a def ñun la doo def mécanicien tey nga dem defi ji menuisier du yoon tubaab yi saa lu seen doom di suivre dañ ko ci encadré ba nga xamante ni bu ci génnee au niveau lay nekk mais ñun dañ lay tardel moo tax des fois dama koy wax bu ñu nangu ku ñuy wutal suñu yoon ñun nañuy wut suñu yoonu bopp luñ ci fekk ñu xam ni mooy loolu des fois je pense que ji daf ko doon way bul xaar looy def def ko lu la ci fekk nga xam mooy loolu bul xaar si tomorrow suba kenn xamul lan la nante bi rek moo xam lan mooy yàlla suñu borom hmm. tàggat leen ay joueurs mhm. mhm. yu ñun ñun defaruñu ay footballeur ay doom ñun ñëpp ay nit lañ li ñu différencier mooy nite ay doomu aadama yu nite la ñuy defar ba pare football dafa éphémère football dafa gaaw peut-être benn dix ans la benn quinze ans après yaa ngi ci leneen léegi après leneen loolu nag non ñun ay doomu aadama yu nite la ñuy defar defaruñu ay footballeur de franchement parler mon defaruñu ay footballeur ay doomu aadama yu nite la ñuy defar après football bi après football bi ñun foofu la ñuy gën a accentuer wu sax que football bi waaw. alhamdulilah sant yàlla question boobu neex na ma trop ñu ngi ci premier étape bi papier yi première étape bi génn na mu des deuxième étape bi gars yi ñu ñuy déggoo lu ma la fii ku mën ne ku yàlla dimb suñu borom dimbali moo fi nekk gars yi ñu ngi ñuy dimbali gars yi ñu ngi ñuy jàppale pour am ñu avancer atteindre foofu noonu mais am nañ papier boobu xamante ni mën nañ ci def lu ñu neex du question de lu ñu neex comme comme ñun ni ñuy waxee Sénégal waxe fi dafa metti lu ñu neex soo ko déggee moom mooy tey jii nii fuñ ñu nee kayit dinañ génne lool munoo am carte d'identité amoo extrait munoo am passeport amoo carte d'identité te dama laal point boobu noonu mu yóbbu ma ci këyitu xale yi damay ñaan comprendre nga comme ñun ay jaamu yàlla lañ dañuy ñaan rek mënaluñ dara suñu bopp damay ñaan état bi aussi di dimbali xale yi pour seen papier yi benn booy du fi am xaalis di ko yóbbu beneen réew bu dul Sénégal booy yi des fois dañuy am problème papier parce que des fois seen papa yi dañuy tal dund dañuy tal lekk dañuy tal naan dañuy fay location dañuy fay courant dañuy fay ndox ba du ñu tal sax des fois di déclarer seen booy yi des fois booy yi am problème mu këyit léegi bu ñu demee di wut këyit nag dafay métti des fois nag dinañuy am ay bonne volonté yoo xam ne dina ciy jàpp mais gars yi foog ñu gën ci jàpp pour yombalal xale yi këyit yi këyit yi xale yi billaahi wallaahi wa taala kenn du ci am yóbbu ko beneen réew pour dana pas citer benn réew kenn di mer ku ci am Sénégal gii nii nga koy indi dimbali say waajur dimbali ñi nga war a dimbali waaye gars yi foog ñu dimbali booy yi quoi parce que booy ay jàmbaar lañ barki alxuraan ay jàmbaar lañ man waxuma ay coach waxuma ay kii waxuma booy yi foog ñu dimbali leen parce que ay guerrier lañ ay jàmbaar lañ booy suur ci àdduna yi ci Sénégal yëpp c'est parce que des fois ñun Sénégal dañoo tàmm naan non ñun Afrique ñun ñëpp a yem déedéet gars yi nañ bàyyi loolu parce que ñun xamuñu Afrique ñun Sénégal la ñu xam na ñuy wax chaque instant que jëfe gars yi nañuy dimbalante fii foog ñuy dimbalante bu ñu bëggee avancer foog ñuy jàppalante bu ñu bëggee progresser waaye nag da cay fekk loxol borom tëdd kër ga naan dina baax tëdd kër ga ni jour la di nelaw ba heure bu la neex ni da ngay dem non gars yi ñu ngi ci terrain yi 5 heures du matin ñu ngi ci terrain yi 6 heures du matin ngay gis koo xam day def navette di rey boppam saa yi gars yi foog ñu bàyyi xel li ñuy def quoi franchement parler. Mhm. Mhm. waaw kàddu yu ma ci yokk bëri na bëriwul damay remercier. coach yi nekk Sénégal yëpp moom laay njëkk remercier quoi c'est que xam nga tax ma leen di man ku tuuti laaj seen biir ndeysaan ku tuuti laaj seen biir mais jox nañ ma dayo boo xamante ni da ngay jàpp ni sax laxaat coach yu mag a mag yooyu noonu la te billaay toll ma fenn damay jàng damay jàng wallaahi damay jàng ñoom laay njëkk a remercier di remercier ñëpp c'est xam lu tax xam nga tax may remercier c'est parce que tey ku dul ku sante nit doo sante yalla suñu présidente këram salam lañ jël ba def ko ki magasin parce que alxuraan saalam boo fa duggé bu la neewul toogal doo toog billaay wallaay moom la jël def ko magasin Africa Sport Football Club loolu c'est pas donné à n'importe qui franchement parler mais ma ngi sante ma ngi gërëm ñëpp ñëpp sénégalais yëpp ma leen di sant maa leen di gërëm Sénégal yëpp maa leen di sant maa leen di gërëm parce que alxuraanu karim pas avec maire bi du ma leen sant dama leen di ñaanal kase barke alxuraan dama leen di ñaanal du ma leen sant dama leen di ñaanal leen di ñaanal barke alxuraan yal na yàlla doole yal na yàlla kàttanal. Euh, mm-hmm. c'est c'est c'est juste c'est juste c'est juste des fois xel dafay fàttu ah, Cisco ñu koy wax Mamadou Doumbouya ñoo doon joué ndoo ba léegi bàyyigul mi ngi joué Dembo Samb ñu koy wax Dembo ba léegi mi ngi joué Vieira ñu koy wax maam Cheikh Ndoye ba léegi mi ngi joué ñooñu tey jii nii fu équipe bi yegg ñoom la parce que sookul bi moo am solo sookul bi moo am solo du ma fàtte kenn koo xamante ni c'est un ami à moi moom mooy Abdou Karim Lo Thiès la dëkk moom ci la bokkoon ci la bokkoon te ba léegi mu ngi ci des fois wax mooy toll foofu nga ni ci la bokkoon te ci parce que. am na lu ci def ko am na lu mu ci def mais jàpp na ni nag fii laa koy waxee ci ci ci ci écran bi jàpp na ni nag fàtte naa ko non fàtte wu ma ko barke alxuraan sama gain la sama xarit la bilaahi waaw mu tàggatoo wóorul du may coupé rek waaw waaw alhamdulilah santaat yàlla di ñaanal aussi boo yëpp booy jour Sénégal yëpp yàlla na yàlla defal tawféex ak taysiir c'est parce que ay jàmbaar lañ quoi booy jour Sénégal yëpp ay jàmbaar lañ gars nañ leen leen dimbali surtout ci seen papier yi nañ leen leen dimbali surtout ci seen papier yi nañ leen leen dimbali surtout ci seen papier yi gars yi moom moo xam extrait moom moo xam carte moom moo xam passeport gars yi aussi tamit ñi leen di dimbali nañ leen di laayante biir voilà man soxlawu ma ci prix de revient defuma pour bu booy amee ñëw dimbali ma déedéet xam nga lu ma ci def boo ñëwee fekk sa papa plan A nga ko plan B foofu rek la jaajëf waay aussi di la sant di la gërëm yow ñoo doon joué ndoo li ñuy joué ndoo yëpp yaa ngi làqatu di jàngi man maîtriser wu ma concentré wu ci football rek te saa fu ma la soxlaa heure bu ma la soxlaa da ngay daw ñëw encore merci boy merci Mohamed Top jaajëf waay